na ñoo xam ne bu leen yoon woowee dañoo war a wujjee waaye bëgg jàmm wur ta tax ñu nangu ñenn ñi yoon woolu leen ñu bañ a wujjee njiitu réew mi di président Macky Sall nee na bi nga xam ne moo xew ci réew mi ay nit ñoo jokkoon nas ay pexe ngir nërmeelal réew mi te am na lenn loo xam ne mënuñu ko nangoo moom Macky Sall démb daat nay wax ne ñu bari nag doon nañu sàkku ma yëkkate samay kàddu ci tolluwaayu réew waaye la ma cay wax wax naa ko ci conseil des ministres ndax am na benn une minute boo xam ne maanaam def nañu ko ngir jagleel ko ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci mi waaye gisuma benn solo boo xam ne war naa tax ma mën a def ab déclaration Libération moom njiitu réew mi di président Macky Sall démb nee na waa secteur privé bi image su ci lu jëm nga xam ne moo am ci réew mi ak yàq yi nga xam ne nemmeeku nañ ko jëm ci wàllum banque yoo xam ne yàq nañu ko ay commerce yoo xam ne yàq nañu ko ki koy fay moom njiitu réew wax nga xam ne ñooy secteur privé bi nee na Ousmane Sonko bu ñu ko bëggoon a jàpp nëgg ni jàpp nañu ko bu yàgg-yàgg daan nay wax tamit ne Ousmane Sonko bu ñu ko bëggoon a jàpp dugal ko ci kaso bi dugal nañ ko ci kaso bi bu yàgg-yàgg ndax fan yi ñu génn jàpp nañu ko fu sore sori te bi ñu ko jàppee këram la ñu ko yóbbu te mënoon nañu ko jël yóbbu ko kaso waaye bu ñu ko yóbbul kaso li ko waral mooy bëgg réew mi am jàmm réew mi ànd ko dal moom jiitu réew mi ci réew mi quotidien démb ci audience bi nga xam ne séqoon na ko ak secteur privé bu Sénégal daat nay ñaawlu bu baax a baax taxawaayu plateforme F24 ndax nee na ñi nga xam ne ñooy waa plateforme F24 si jamono joo xam ne Sénégal ma ngi jooy ay néewoom situation bu doy waar am ci réew mi ñoom ñu taxaw ne dañuy amal ay manifestation démb Macky Sall wax na ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature ma nee na amul kenn koo xam ne moo koy sàkkal maanaam heure bi nga xam ne moom la ci wax ak heure bi nga xam ne du ci wax moom Macky Sall nee na teguwul fenn ay nit jóg na ñëpp ay nekk candidat ba mu moom loolee ay caaxaan la te xel mënu ko nangoo moom Macky Sall nee na ci lu jëm ci wàllum candidature ba maanaam weeru août ci lay wax moom njiitu réew mi ci biir journal bi daan wax ne du def lu yées li nga xam ne moom la fi ñi fi wutu def fa ndax moom Macky nee na dina fexe ba du mujjee pusu bi mu réer yéen kaay gii di la témoin xëy duñu xibaar naan ñu ginnaaw yu tar yi nga xam ne moo amoon ci réew mi Amnesty International ñoom nag nee nañu ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bi ñu ko xayma càmbar ko biir biti toll na ci ñaar fukk ak ñett maanaam 23 morts moo ci am journal bi de la nee na lu jëm ci wàllum dialogue national bi tey ci la liggéey di commencé ji préfet bi tere na ko la ko waral nee na lu jëm ci wàllum délai bi nga xam ne moom la plateforme F24 waloon na respecté respecté wuñ délai boobee ak situation bi toll ci réew mi Le Quotidien yéen i kaay xëy duñu xibaar naan ñu nekk loolee nga xam ne ab arrêté la préfet daal di koy génne plateforme f ñoom dañu ko daal di nappaaje dañu ko piétiné ba pare joxe rendez-vous suba ci samedi ji ca i kaay gi di 24 heures bu Ndakaaru tere na manifestation bi nga xam ne F24 ji bëggoon nañu koo amal ndax nee nañu respecté wuñ li nga xam ne mooy délai trois yi ñi nga xam ne ñu waa Pastef ñoom nag nee nañu ba ñu si nopp bu ñu sañum ngera préfet rek ñàkk tere la ñu si yemalee danañu manifester ci nii wala ci naa yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu parti Pastef ñoom nag ni ki démb ginnaaw digg bëccëg gi doon amal conférence de presse nee nañu Ousmane Sonko jamono ji ci ci kaso la nekk loolee waa ko xamle nee nañu timit waa police maanaam gàccal nañ xam ne police na ko ci nervi nga xam jamono ji moom na ñuy kekkantoo di ko ŋawta ŋawte ci bitim réew ñoom waa Pastef nee nañu nag ministre Antoine a xam ne gi moom ci moo war a bàyyi nguur ge te nag ñoom waa Pastef ñoom nee nañu en ñi nga xam ñu yopp Pastef nee nañu ak nguur guy jaay doole moom la ñu yor ndax nga xam ne ñoom la ñu jàpp jàpp gi bëri na lool ñi nga xam ne ñoom la jël dugal leen ci kasu bi loolee tamit bëri na Ousmane Sonko jamono ji ñu doxalee ak mooma tegewul fenn ñoom waa Pastef nee na ñu manifestation yi nga xam ne moo fi am fan yi ñu génn am na lu toll si ñaar fukk ak juróom benn yoo xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan te am na ñeent ñoo xam ne ba léegi maanaam xàmmee guñu leen yéen kaay gi di 24 heures xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci Ousmane Sonko mi nga xam ne moom lañ doon wax ne dañu ko woolu ci diwaanu Touba loolee waa Pastef ñoom El Malick Ndiaye ni ki démb weddi nañu ñu diwaanu yi ne moo amoon fan yi ñu génn lu ëpp ñaari téeméeri junni ci dossiers yoo xam ne taal nañu ko moo tax liggéeykat yi nga ne ñoo nekk université tiit nañ ba maara day taal yi te nag soo moytuwulee seen liggéey ñu amoon dañu koy ñàkk yéen kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu coowlee li ko waral mooy dossier Sweet Beauté waaye nag ba léegi mbir mi jeexagul ndax Adji Sarr def na appel yéen kaay gi du Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu démb sa diwaanu Ziguinchor am na kenn dañu ko doon ropp maanaam ku faatu ci a gazé Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci consulat bu Milan ci Italie ñoom nag ni ko suba danañu amal toogaanu ñaxtu maanaam ab sitina ngir nag ñaawlu bu baax a baax consulat nga xam ne dañu ko yàq maître Aïssata Tall Sall ministre bi ñu dénk mbirum affaires étrangères moom nag nee na mbir mi ko bàyyi mu sedd danañu ko yóbbu fa mbaxana doone benn yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Seydina muy dund a baax consulat bu Milan bi nga yi nga xam ne ñoo nekk diaspora bi ndax consulat bi moo yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum papier sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew te képp koo xam ne am nga dooma te consulat ba ngay dem moom Seydina Seck daan nay wax ne mbir mi nga xam ne moo xew consulat yi doy na waar genn xeetu doy waar koo xam ne maara détaillé waaye nag dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëgaluñu ko seen yaram moo xam société civile bi moo xam presse bi la yéene kaay gi de l'observateur toppee maanaam waaye tamit toppeeku lu jëm ci wàllum financement des manifestations